asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou taxa ñu fi Serigne Touba ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naa li nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñ boor may ko kàttan ak wér ba lépp mu àggale ko ñu ñëw fii di yékkati kàddu yu gàtt di kàddu yoo xam ne yaa rekk la cant ak ngërëm ak ñaax ak soññu ndax du mu taxa yàlla dafa def ci moom képp ku fi nekk Sëriñ Tuubaa suñu boroom dàq na ci adduna dàq na ci yow bakkan moo doon Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa moo doon Rasulullah kon wa maa yantiqu anil hawaa lépp lu mu wax rek lu yàlla digle lépp lu mu wax rek lu suñ borom santaane la ndax li sëriñ Touba waxoon rafaatale na ko képp ku ko fi toogal toogooto ci mujj njaarim bi ñenn ñi ñëwee di ko digal ne ko dañoo bëggoon nga doxale sa diggante ak tubaab yi diw ndax mën naa am ñoom danañ gën a mën a wax ak ñoom te kon jàmm dana gën a mën am si digg ñoom sëriñ bi ne leen loolu de duma ko def ndax sama digg ñoom kenn doyuma ci ñoom ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man nag suma xupp suma xëpp sëriñ Tuubaa nag loolu ko suñu borom defal képp ku ko fi nekkal itam doon doon na na loolu kon nag dañuy sant yàlla bu baax. bi ñu Serigne Touba fàggulee ay kilifa yu mat yu mat lañ doon képp ku ko fi mas a nekk rek Serigne Touba def na loolu caw ba yàlla def moom mii nekk fi di Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñ borom dëgëral ko te guddale aw fanam tamay ko kàttan ak wér muy jëmm joo xam ne nag bokkam yi mu bokkal Serigne Touba li muy wax naan lu mu doon rek ñoom laa ko gën a yéene moom itam yàlla def na loolu delluwaat ci moom. ñoom ñëpp yéene nañ ko jotaay bi ñoom ñëpp ko yéene ndam wa yoosiroona ala anfusihim wala bu kaana bihim xasaasatun bu ak dundut teewoon ak faatu teew ñoom ñëpp mën ñu mën a joxe seeni bakkan ngir moomu nekk la loolu nag lu ko yàlla defe la ma dindi ci seen seere rek di kilifa bu bu mag bu baax bu maandu goo ne lépp lu mu wax rek ñëpp xam ne ne waxiwu ko ci bakkan muy Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou ci njëlbeenu xilaaf ak sëriñ damaa wax ne ma Cheikh Mouhamadou Mountakha jataayam bi lim may nuróor mooy wa yawma aslama jibrilul amine ata bi isni man huwa fawqal kulli qahaaru mualliman anna anna islaam al fata busra li ahli san wal kulli yaxtaaru ñëpp maase ci nangu biram loolu nag li ko ko may mooy li sëriñ Tuubaa wax ci nax ji rek wa min saadatil fata xaytu xasat allaa yuraddahu fuaadu zirasat sëriñ bi dafa yéene ñëpp jàmm màndargam tex gi ko suñu doon defal nag moo tax benn xol du ko delloo moo tax tey biñ nekkee ci biir oto bi maamom ak sëriñ Isaaxa rakam jëm ci jullikaay ba damaa yéemu ci mbooloo mi xër gi ci moom ak ni mu ko yëgatee moo wax sëriñ Isaaxa Cheikh Mahamadou Bachir ne ko li ma gën a yéem ci mbooloo mi de li muy bari bari boo koy seet ñëpp ay ndaw lañ ay ñaar ka jëm suuf wala lu ko lu ko lu ko weesu tuuti loolu nag kenn wane na ne mbirum Sëriñ Tuubaa lu adduna yi gën a doxee ci kanam la jëm ndax ndaw moom ak jigéen ñoo yor mustaqbal ma àgg ci ne ko li ma gën a yéem mooy jamono dafa àgg ci ñëpp bëgg Sëriñ Tuubaa doon seen kilifa rawatina ndaw ñi day mel ne ruus nañ sax kenn di doon seen kilifa ku du sëriñ bi loolu la ko suñu borom fay kon nag liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii. kenn da cee doonul dara lépp Serigne Touba ko faggul boppam loo ci gisit ak nu mën a dem rek Serigne Touba ko faggul ndax li gën a jafe mooy xol yu nongu te lépp ñu nangu ko joxe ngir sëñ bi kenn ku ci ne la ngay denc sa la ngay jox sëñ bi gënal la ko loolu nag yaakaar naa ba ci histoire ul islam ba nag ni kenn mës ko am jur nit joxe jël sa alal bañ faa des sa dara Serigne Touba rek ku jëkk am te ba nag kenn amatu ko moo tax ilay yaqaadillaahu maa lam ni boo koy firi fu ne danga ko fu mën a firi ndakaaru gi itam nafaali xayrillaahu fii ndakaaru kulla azan li jarahu makaaru fexe yi ñu ko fi doon fexeel mu taroon lool metti lool nga xam ne sëriñ bi fu ne jaaral nañ ko fa lu ne def na ko waaye fii rek lay wax ne bu ma ko fàttalikoo mu metti ci sama xol ba ma bëgg buur rañaan ngir eh, dem jihaad def jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tere ko xamal ko ko yaa ngi ci jihaad ji gën a mag isa sakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bil armahi nafsi walakin zabba anil mahi kon sëriñ Mbàkke yu fay di jëwriñu sëriñ bi ci Ndakaaru sëriñ baa ngi koy sant bu baax di ko gërëm cant gi ngërëm di nag mooy taxawaayam ndax lii mu fi indi tey mooy li ci gën tuuti ndax joxe na jëmmam joxe alalam joxe xalaatam joxe doole ba matul tudd dara ci boppam te loolu man mën naa mën naa koo seere kon sëriñ ba ngi koy sant cant goo am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu waaye na xam na ki muy jëfal ndax jëfal suñu Tuubaa moom jëfal sa bopp rek la waaye nag jàmbaar bu jëfee ba kenn mënu ko ca li muy def warees na ko kañ sant ko kon sëriñ bi nga koy sant di ko gërëm cant gépp na mu dolli ko ñaan. ñaan leen mooy la mu ko seeral lool ne ko li ngay wut am nga ko mooy ngërëm suñ Tuubaa ngërëm suñ Tuubaa mu ko seeral lool nag nee na mi ngi ko ñaan ngërëm la sax ci moom dootu ko ci moom ba àgg ci ak njabootam ndax tey jii kat xam ngeen ne bis bii waa Ndakaar ko sëriñ bi doon te mooy ngir rek am yërmaande ci ñoom ngir xam ne bëtu yërmaande bu leen xoole wala mu wàcc ci suuf si rek danañ am jàmm danañ am danañ am danañ am moo tax sëriñ bi ñëw kon nag bu ñëwee mu jëf lam lu rëy lim jëf ci ngan gi te ngan gi kat xam ngeen ne lañ def ci togg yi rek ëpp na juróom-ñaar fukki million ta nee na sëriñ bi ay téeméer nag des nañu kon mbirum suñu tubaab moo deme noonu li nga xam ne taalibe yi ko doon barkeeloo nag lépp dem na ca moom ci boppam nag moo ne la Sëñ Abdou Lahad daa wax ne taalibe bu ñuy jox sëriñ bu ñuy jox addiya te doo joxe addiya daa mel ne ku yoroo waxandew gaalam ku fóot ay yéreem ba mu jekk rek mun la dencal la bu ñu demee bàgg ci bisu waajtaay ku ne nga jox ko doo loo sol moo xam ne di jëwriñi nit ñi war ngaa génne ci sa ñaq loo joxe mm-hmm. tax mu tey day sant sëriñ bi yëkkati lu tolloog milliard jox ko sëriñ Touba nag sëriñ Touba dégg na ko ba tàyyi waaye yaakaar naa Sëriñ Tuubaa rek ku ma sa joxe ko ba noppi di ko xeeb kon dañ koy ñaanal dërëm bu ci ne yàlla sopplu ko ay tuyaab yu bari te suñ borom noonu lay faye man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha kon nag lii aw soññ la ci képp koo xam ne yàlla defal na la wërsëg nga xam ne wërsëg kat ku ko yàlla defal jox la xolom nga def ko ci baax war nga sant yàlla bu baax suñu borom na xam na ne diisati ci nit ñi moo tax mu ne am waa ko wala yasalkum amwaalakum yasalkumuha fa yuhfikum tabxalu yuxrij adxaanakum xam na ne alal dafa taq ci xolu borom waaye Sëriñ Tuubaa nag ndegam lu ko lépp lu ko lépp lu ko nit di jox ndax soxlawut alal ji ci yàlla la koy defal moo tax nit ñi joxe seen alal gën gën a leen ñu denc ko waxoon na ne nag alale dongee deen xool bu baax fi ngeen ko tàbbal ndax nit fu alalam tàbbi ab xolam topp kon nag bu ngeen gisee ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa lu nit joxe xeeb lépp dafa delluwaat ci Yàlla kon nag sëriñ bi ko sant di ko gërëm di ko ñaanal mucc ak xéewal ak barke te lii mu jëf kat yàgg na koo jëf ndax man li ma xam mu def ko ci liggéey siñ Tuubaa bi ci jumaa ji wax ma nag xew-xew yi mën na ñeent milliard ci walla mu ëpp ci lu ma wóor kon lii day lu feeñ rek waaye li ci def ëpp na loolu kon nag loolu Sëriñ Tuubaa rek la ko yàlla defal waaye nag ak cant rek. Mhm. maa ngi koy wax sëñ su Diop nii di jëwriñu daayira Hizbut Tarqiyyah léegi di ko ñaanal suñ borom dëgëral ko moom ndax dañuy waajal ab siyaara bu mag mën a ko Sëriñ Tuubaa de ku ku kuy jug jëm ca kenn du la yërëm la ma waxoon ak Cheikh Ibrahima Fati ne ko bis mu woo leen bañ dikk fekk yeneen sëñ bi di sant dafa bari sëñ bi ne ko ab liggéey laate de ab liggéey laate ndax liggéey yi nu muy toftaloo rek. mu ne ko Mbàkke de li tax saa soo ma wàccee du ma nangoo wàcc mooy yaay njëkk xëy ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ba na gën a ko ku ko xool ci sëriñ bi ñaan xam ne li muy def jom rek la ko defee ak positif ma ne ko li may yéem ci yéen yéen a ngi jigo ci koor gi li ngeen ci daj yéen a ngi ci këru xasida ga war a defaat ab siyaar bu mag boo xam ne dañuy jaayante war ak sëriñ bi wëlbatu ko di waajal màggal Tuubaa te liggéey si ñetti loolu nag Serigne Touba rek ko attan te taalibe Serigne Touba yi nag Serigne Touba leen ko faggul ndax ñoo daq joxe ci nit ñi waaye ñoo ëpp wërsëg ñëpp kon nañ xam ne fàggu def Serigne kon nag le sëñ bi laxat waxoon rek ne luñ góorgóorlu ci sëñ bi ndax luñ jëfu ci sëñ bi àdduna dana leen ko leb te àdduna lu mu la leb du la ko delloo kon loolu ñëpp ci war a jàng te xam ne addi yi nag pastéef rek ci am solo ndax ki mën a joxe milliard ak ki mën a joxe dërëm nag ko sëriñ bi leer la woon ci gànnaar nett woon naa ko seen siyaare ba daaw ki joxe dërëm te am pastéefu milliard mel na na ko joxe milliard waaye nag kon euh, dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ne nag taalibe yi moom li ñuy joxe soxlawuñu ñoo xam fu ñu koy def waaye nag lu ci tàbbi ci sëñ bi nag day tax muy gën a sotti ko maa koy wax sëñ Yuusu léegi la sëñ bi waxoon sëñ ma Juuf jatti ne ko Cheikh Ibra de li mu wutee ñëpp mooy bu ma ko liggéeyloo am néeg mu liggéey ko ba néeg bi àgg ma kos almet taal ci wala ma ma di fa liggéey yonent bi di fa jàmm yàlla ñooyam ci moom loolu nag sëñ Tuubaa rek kon nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan dëkk bii di ndakaaru nga xam ne ku tedd ki wàcc na fi di borom jamono yàlla na fi suñu borom wàccee xéewal ndax sëriñ ma saxir mbay kat ma mas na Cheikh Mamadou Fadil mas na koo seeti hmm. mu tari ay bayit yu am solo mu sadd ay bayit ne ko lillahi qawmun iza xallu bi manzilatin xallan nada wa xalat fi ljawi anwaaru tastaquhum kullu ardin yansiluuna biha ka annahum bi biqaahi l ardi amtaaru hmm. Cheikh Mamadou Fadil tontu ko ne ko isa laqitahum aw kunta zairahum bi yumnihim faaraxatkat faaraxatkat dahr aw zar ndax moom Cheikh sëñ Ahmadou Saxir sëñ ma Saxir Mbay ku àggoon ci boroomam la doonoon nitu yàlla ku mag nit nett na ma ne masta ci njaareem koo xam da ko fekke Cheikh Fall mi ne woon ci jumaa ji fekk daa siyaare soon Cheikh Mamadou Moustapha bay génn am picc dugg ci néeg ba ci ak mu génn mu di picc mi de mi may tàggi diw doomi diw ak diw nañ indi suuf ma ñaar ko ñu dem tubb suuf indi ko mu ñaar ko naka mu génn rek ñu tàggi ko kooku nitu yàlla Cheikh Mamadou Fadil nag ñëpp xam nañ ne koo xam ne waxuma la loo ñaan waaye loo kafe sax suñ borom def ko kon nag ñu ngi sant ñëpp di ñaan nag ci darajee Serigne Touba ci wàcc gi fi Serigne bi wàcc xam ngeen ne dëkk bi jamono yëpp nit ñaa ngi jàmbat ñàkk sécurité te sécurité kenn ni ko suñ borom waxee ci alxuraan fu mu néewut kenn du tale jaamu yàlla falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf kon yàlla na fi suñu borom defaat barke ba dëkk bi ne wàcc ci jàmm ndax jàmm ku ko amul dootal dara ba ca des it ñi ngi masow sëriñ bi sax waroon na fa yónnee suñu bokki dëkk bee di tiwaawoon di mbokki jullitam di mbokki deretam xew-xew bu diis ba fa wàcc nañaan xam ne loolu mbas la mbas la mu rëy am nattu la nattu nag jullite ko moom mbugal yéefaru ko tax a jóg kon loolu nattu la waaye sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati kàddu njaal di ko teg ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk ba di sëriñ Babacar Sy Mansour alxalifatul am di tarixati tijaani yi ak mboolem njabootu Cheikh El Hadj Malick si gépp ak mboolem ña fa dëkk ci dëkk ba bayut kenn mi ngi leen di jaale ñooñu nga xam ne ay mbokk lañ di ñaan ña fa ko te ñi ci ëpp di ndaw wala bu fekkee du lépp itam day ci ëpp ay ndaw lañ suñ boon def leen li ñuy wax asalafu salih dawalu biw ndax ne ñoom toggaguñ leen jëf ba bàkkaar wala waaye su yàlla suñ boon leen ci mina salafi salih Sëriñ Tuubaa rek lu ko suñu borom may rek may gi day continuer wa am si yun si nii bi yow bixat lu lu mujj rek day geccal la ko jëkkoon mas naa wax sëñ Masamba Diop Samb ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke ba mu ne ko mbaa xam nga ne ak Dame la Dame mooy dencukaay mu ne kon de ñu fas yéene doone lantinoor rek mu ne ko loolu képp koo xam ne def nga ko ci buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw danaa ko yëkkati na sa diw gaa ngi kon lii seen jëf ji ci loolu rek la tàbbi Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen milliard bari na lool bi ku ko sëriñ Bakki yu yëkkatee jox ko ko mu tegaat ko ci sama loxo ne ma lii kat addee Serigne Touba nag addee Serigne Touba nag ci compte Serigne Touba rek lañ ko war dugal ma ne kon daal koy jël dugal ci compte Serigne Touba bi moo tax fi sensé ñu woo waa banque islamique bi nga xam ne fa la war a dugg ñu ngi nii toog di ko wàññi ak njabootu di Serigne Bakki yu fa yebal ak doomam ak i jarbaatam ñu ñëw wàññi ko weesu ko ci compte Sëriñ Tuubaa bi moo kon ñu ngi foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow yaay loxoom yaay tànkam yaay làmmiñam